asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan te dañu déglu fu nu mën a ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi toggaat fii ci kanam cheikh mahamadul basir moom cheikh abdul xaadir mbàkke mi nga xam ne saa yu jógee ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa lay jóg ak ci kàddoom mu toggaat fii nag ànd ak ay bokki taalibe waaye ànd ak ay kilifa yoo xamante ni bii li leen tax a jóg mooy lépp loo xamante ni bii warteef la wu war état ci am réew te war leen ci Touba gii ñu amaan ndigal nag ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mu jox ndigal Cheikh Mahamadul Bachir ngir mu ñëw teewal ko fii ci jataay bi nga xam ne liñ ciy def mooy tàmbali corniche bi nga xam ne moo ne ci xaaxira te wër Touba wër ko ba jaarewaat ci 30 bu seex Cheikh Bombali ba ñëwaat xaayira trent boobu nag lañ fas yéenee tàmbali liggéey mu toog ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey bi Serigne bi yebal ko mu ñëw teewal ko fi ànd ak Serigne Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal yépp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tàmbalee ko ci sëñ Muntaxa muy sëriñ Touba ak sëriñ bas mi mi ñu booleel ci liggéey bi ñu ngi ñëwoon tey jii ngir sàkku si ñaan. sàkku si ñaan ak ndigal pour tàmbali li ñuy wax mbeddu trent bi defar ko ci ndigalu suñu ay kilifa ñi ñu fi yabal nañu pour ñu def liggéey bi liñ ci jublu tamit mooy ne liggéey boo gis ci affaireu tali dafa am loo xam ne nii moo koy jiitu muy étude technique étude technique yooyu nag bëgguñu woon ci def ci dara te amuñ ci ak ndigal ak ñaanu sëñ bi loolu yàlla defal nañu tey jii ñu defal ñu ko pour ñu tàmbali étude technique yooyu étude technique yooyu nag dina ñu war a jëlal lu tolloog ñaari weer bu ci yàlla àndee. maa ngi ànd ak samay samay eh, naataangoo ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi ànd naa ko aussi ku ñu wax Balla Gaye nga xam ne moom liggéey bi moo ko war a moo koy suivral boppam nga xam ne nii moo fi nekkal Agilot guddeeg bëccëg waa CSE aussi ñu ngi fi directeur technique baa ngi fi ba Sow.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 soobee yàlla délai bi incha allah wee at ak genn wàll lay doon waaw at ak genn wàll assainissement yooyu yëpp nañ ko. yoo xam ne ci la bokk. waaw loolu yëpp sóoraale nañ ko bu soobee yàlla ndax étude bii ñuy commencé tey jii wut si woon ci ndigal ak ak ak ak ñaan loolu mooy génne loolu yëpp mooy génne affaire assainissement bi ñu seet fu ndox yi jaar fu nu taw bi demee euh, fi tiwo yi di jaar fi ñu war a jaarale euh, courant bi euh, téléphone bi ndox mi. ñu seet tamit yooyu yëpp ba mu féete boor ñu doog a tàmbali nag. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ci ndigalul al Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi te dëgëral ko kàttanal ko sàmm ko ba yéene yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom mooy ko kàttan ko wér ba lépp mottali ko kon ci ndigalam ak turam lañ teew fii tey ndax xam nga ne yoon lépp luñ ciy def rek moo ci joxe ndigal ndax mooy boroom liggéey bi mm-hmm. kon ñi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ci tur nguur gi ngir tàmbali liggéey bii nga xam ne yàgg nañ ko bëgg yàgg koo sàkku ba suñ borom di ko door a dogal ñu war koo tàmbali tey jii muy loo xam ne itam Cheikh Mouhamadou taxa mi ngi koy rafet bu baax a baax ndax liggéey bu rëy bu am solo boo xam ne bokk na ci li gën a yombal dem gi ak dikk bi dikk gi ci biir dëkk bi dana yombal itam xew-xew yi fi am rawatina màggal Tuubaa gi nit ñi seen dem ak seenu dikk ndax xam ngeen ne mbeddum talant bi euh, Cheikh Mouhamadou Fadil bokk na ci natt yi njëkkoon a def. mu wër dëkk bi bi mu ko joxe ndigal Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu di ko taxawu kon bokk na ci mbedd yi nga xam ne mooy jiitu ci yi sës ci jumaa ji yoo xam ne wër na dëkk bi kon mbedd la moo xam ne képp ku dëkk Touba xam nga ko ndax ñëpp ci dëkk bi buñ bëggee dem fu gën a yomb ci ñoom fa lañuy jaar te suuf la ba nag ni kon nag bu yàlla defee tey ñu war koo tàmbali sëriñ bi wax na ne loolu mi ngi koy rafetlu bu baax. Euh, di ci gërëm nag ki nga xam ne yàlla def na ci loxoom la sottee muy président de la république Macky Sall mu bokk ci projet yi nga xam ne digg euh, digg woon na ko wax ne bu faloo bokk na ci yi mu njëkk a tàmbali mm-hmm. kon lii firndali ca loolu kon sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ñaan itam liggéey bi nii mu ko tàmbalee ak yeneen liggéey yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a def ci réew yàlla may ko kàttan ak wér ba lépp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 yi nga xam ne mooy li jiitu ci ñu war a defaat ci dëkk bi ndax bii biir dëkk bi ko moom yenn tali yi ak siwaat mooy jëm ci quartier yu sori yi kon loolu itam sëriñ bi ñaan yëpp mu sotti ndax moom dara bàyyiwu ko fi lu may njariñu nit ñi ndax xam na nit ñi fi dëkk ñoo koy jariñoo waaye nag comme moo fi sëriñ Touba bu soño ñi dëkk ci dëkk bi kenn du ci tuum rank bu soño ñëpp duñ nekk ci ay coono kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu